d'abord sant yàlla bi lépp xewee ci jàmm ak dal téeméeri nit ak ñaar fukk ak juróom muy góor ak jigéen euh, ñoom ñëpp dem nañu yeble seen ndaw pour jël fiche yi nga xam ne nii ci la euh, euh, natte nattee bi léegi nag loolu li muy tekki mooy démocratie sénégalaise mu ngi dox nit ñi am nañu yaakaar ci réew mi nit ñi am nañu ay yéene ci réew mi yu wuute léegi nag fi mu toll parrainage la benn la ci filtre yi waaye d'ici que cour conseil constitutionnel wax ne ñi ñooy candidat am na ay am na ay euh, jéego yoo xam ne ak ay app yoo xam ne ak ay nattukaay yoo xam ne boo ko ku ko jéggiwul mënoo bokk ci ñu ne candidat te du du du rek mbiru parrainage mën nga da nga am yoo war a wàccool ci wàllu fisc bi ci ak ci wàllu euh, loi ak yoo xam ne ni tëral na ko incha allah yaakaar naa ne fileeg ñiy dem ci dépôt yi lu ñàkk ñenn ñi xam ne bëgg a dem taxul a dem mën a demee tax a dem ah, loolu daal laa ci xam. waa xam nga parti moom li li tax nit di ko sos du pour boppam euh, bu doon loolu la kenn ku ne doy lool la la muy la muy ñàkk li am ak li muy jundee da ko sos ngir. lëkkaloo ak ay nit yo bokal pas-pas bokal, yeni bopp bokk ak ñom xalaat ak mebet pour liggéeyal sa réew ñun wa parti socialiste eh, gannaaw bo xamee ne xam duñu ñoy ñan fuñu fuñu fu ko fuñu jaar ñan lañ andalon ak lan lañ def ci réew mi bi nga xamee ne 2012 bu nag ñu ngi sobu ci benn bokk ka dañ ne kat gor ca wax ja gor ca wax ja nak boko xasse ba wax sàmmoon tek sa kaddu la ndax gor bu digal ak na day sam kaddom kon mbir mi du diw mo jité parnage bi diw moy nangam li am solo moy li nga bëgg yéene ko nga am fulla ji toll ni ak fayda ak mat gu toll ni nga nga nga jox ko akam te bañ fàtte sa bopp parce que lo ci gis ci ñi wax naan ma war doon diw wala di war na doon nangam wala parti war naa doon nangam loolu mbiri positionnement la positionnement guñ ca ndax nit ki am na droit am sabab am na yéene waaye yàlla mooy dogal teyit li am solo mooy lan la ñuy defal réew mi ak nan lañ ko defal ñun nag am nañu candidat ñoo joxoon suñu kàddu candidat bi mu ngi tudd Amadou Ba ñi ngi sàkku te loolu mooy li ñu par ak dogalam ñu ngi sàkku ci képp koo xam ne socialiste nga nga fàtte sa bopp te jiital li nga yéene Sénégal ak li tax nga ne yaa ngi ci Benno Bokk Yaakaar nga dem pare a euh, Amadou Ba parrainage yi am na parrain national coordonnateur bi muy Ablaye Diagne ñu koy ndokkeel di ko félicité am na ay coordonnateur par région loolu dañuy yombal liggéey ba maanaam ñooñu dañuy dajale yóbbu jébbal ki nga xam ne pare parrainage bi ñoo koy ñoo koy def kon nag maa ngi sàkku ci socialiste Sénégal yëpp fu ñu mënti nekk ci 138 coordination yi bu ñu déglu leen di Eh, yakkat ci galu xaj wala ñi leen di yene seen dundu gu ñong te duñu leen dimbali ci dundu gu ñong nañ ñom li nga xamne ñoo ci dugal seen bop dugal seen parti muy seen pass pass nañu fexé ba lolu wëy ñu am ci ndam and ak nak ak bolem sénégalais yi nga xamne ni ñu ngi yaakar ne fu parti aw fofu la ñu nek ñepp nañu sobu ci parrainé parrainé ko en tant que citoyen parrainé ko en tant que ay maire ak président de département waye tam nañ ko parrainé en tant que député à l'Assemblée nationale bu kenn manqué na ñepp joxé seen cadeau gordal ci wax ja waaw ni mu amee ci biir kuréelu politique googu mbala ñu Ousmane ñi mu àndal na la amee ci yeneen parti même ci biir Benno am na ñu ci nekkoon génn nañ ci wuti wuti parrainage kon du du du du sikk ak doom adama bi am na maanaam damay wax ne l'ambition mooy moteuru histoire mooy moteuru vie. léegi nag li ci mën a jàngat mooy ñooñu bokk ak moom wir de politique tey bokk moom li ñuy waxee projet te te rocceeku ci sayam lañ busee ak ak loo ci mënti dégg. le fait que ñu nekk candidat comme moom ni mu bëggee woon nekk candidat lu wane mooy benn xam nañ ne mënut a bokk kon bëgg a dem taxul a dem mën a demee tax dem ñaar ñoom ñooñu wóoluwuñ ko ni mooy bon candidat bu baax ba te seen biir it wóolante wuñ maintenant nag ñeex naan ay ndëgg sërëx la ak ay pexe la pour pour pour pour loolu xam nga wure moom wure moom wure rek la te am xel bu guddee mën a tënk borom am xel bu guddee ba ëpp mën naa tënk borom li ma xam daal ba xam ko mooy euh, euh, li tubaab di Euh, naxe naxe daa gaaw a la ruse ça s'use use nak mën amuser ruse mën amuser Naxé mën la laa neex si saa si ndax xalé bokoy nax sa dang koy nax neexal ba ba mom moom dugg ci waaye lu gawa gawa a gaaw gaaw naxe neexal gi day nax say. kon nag la la ruse amuse mais la ruse s'use très vite Légui nag li am solo moy ñom nañ wuti bu ñu ñi xam ndax liñ am fuñ ko teg ci ñen ñoo leen gémba en ce ci filtre yi nga xam ne ñooy ñëw ak état yi ñu war a am ku ci jàll rek bu ñu yeggee ci élection yi def ko ci jàmm njëkk ak teranga téeméeri projet ak ñaar fukk ak juróom pour le moment yéeneew nañu jongante euh, ñu ñi méngale leen pour Sénégal yi tànn buñ ca yeggee en tout cas yàlla moom nëpp na pare te nit ñi mu koy yaarale seen bopp ak seen seen vote ñooñu moom. yàlla dana leen fi bàyyi ba ba wote ba te ndax démocratie nag xam nga ñun ñoo am solo citoyen électeur mooy le peuple citoyen électeurs